أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ولا حول ولا illa إلا بالله العلي العظيم bokki jullit yi topp suñu jataay ci seen émission yi ñu leen di defal ci Shukran ci Dakar Midi point net ñu ngi dellusiwaat rek fi ñu leen ko daan defale ñu ngi jeexal weeru koor wu tedd wi di shahru ramadana al mubaraka di weeru ngëneel weeru alquran weeru weeru la weeru dundal jàkk di weeru sarax di weeru jirim yi di weeru xam mitit ak coono nu mu mel ku ci nit nag war nga mën a góorgóorlu ba bu la nit tàllalee loxo ne la dimbali ma waru la caa teg baat ndax lu nekk nag yàlla daf ko dogal ci ñun mais dafa am lu muy natt ci ñun parce que yi ñu koy defal yëpp soxlawu ci dara moom yàlla moomu subhaanahu wa taala moo tax sax mu wax ci alquran ne jullit ñi nañuy jëfandikoo lii ci seen biir wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan wattaqu llaha inna allaha sadidul iqab yàlla nee na nangeen dimbalante ci loo xam ne bu sottee ku ne màng ca ragal yàlla nangeen ngeen dimbalante ci loo xam ne bu sottee ku ne màng ci yiw ak tuyaaba waaye na ngeen góorgóorlu ba bu leen dimbalante ci loo xam ne bu sottee mbokk yi gàddu yet wuti sa moroom rekk moo cay topp loolu mooy lan mooy di nasal sa mbokku jullit pexe moo xam ne bu sottee du baax ci moom wala di nasal sa mbokku jullit pexe moo xam ne bu sottee ñu ne cam kooku ku ko def am nga bàkkaar te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon dafa bokk ci trahir confiance muy nit ki laaj la soxla wala mu laaj la xalaat ci dara nga tegtal ko ca loo xam ne bu doon yow doo jëfandikoo noonu su boobaa danga nga te yunent bi nee na man xasha fa laysa naa ku trahir bokkuloo ci man moo tax yàlla ne su ngeen dimbalee ci lu leen di indil tuyaaba ba noppi na ngeen ca tofal ragal yàlla da ngeen wattandiku ma nag man yàlla ndax man samay duma metti la ci ñi nga xam ne dañoo jàdd yoon wala ñuy jubadi fi ma leen jaarale woon moo tax jëlee nañ ci abi hurayra radiallahu anhu mu jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi nee na yàlla warlu na ñett donte waratu ko ci dara donte yàlla dara waratu ko ndax léppam pare na mais yàlla warlu na boppam ñett ci jullit ñu ne ko ban ak ban la mu ne bi ci njëkk mooy jullit bu nangoo jihaad fi sabilillahi jihaad nag bu ñu ko waxee dafa yaatu koor gi nga nekk sax jihaat la parce que yaa ngi ciy saraxe yaa ngi ciy xañ sa bopp yu neex yi di ko def te jëmmi yàlla rekk tax yaa ngi ciy def ay nawaafil di jàng alquran yaa ngi ciy jéem a jokk ak bokk ndax nag jihaad fi sabilillahi bu ñu ko waxee rek du gàtt gàddu jaasi kese di xeex déedéet parce que jihaad jooja dafa amoon sabab am cëslaay waaye jihaad jëfe des nag mooy fexe xeex ak sa bakkan not ko ba xam fi ngay jaarak ak moom yonent bi nee na ko am volonté ci def jihaad fi sabilillahi yàlla dana ko jàppaleel boppam ñu ne ko ak ban mu ne wal mukaatibu lazi yuridul adaa ak ki nga xam ne dafa gàddu bor ngir lot te am yéene fay bor bi mu leb bi nga amee yéene ji te leb rek def ko fu dagan yàlla jël na volonté ci sarax la loo fayee sa bor boobu kon loolu yàllaa ko gàddul jaam bi beneen bi ci des mooy yàlla gàddul na ndimbal ki nga xam ne dafa jël volonté denc soxna ngir fegu boppam ci mooy yàlla wala soxna si nga xam ne dafa gis kum jaamoo yàlla dem dugg ca te yàlla tax ngir fegu boppam ci njaaloo kooku yàlla jël ndimbal ne danaa ko dimbaleel sama bopp yàlla nag mbokk yi ëppale na boppam di wax ak ab jaamam wax ja di niil wala muy neen ndax ku man boppam la moom sunu borom bi subhaanahu wa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax abi Moussa al Ashari radiallahu anhu ne ko euh, sarax ci jullit dafa baax mu ne ko waaw yaa rasulullah yu ko amuloo saraxe nag nooy def mu ne ko na jëf-jëf ju baax mu ne ko su ko munul mu ne ko na ko yéene fekk ko am aajo nga yéene faj aajoom topp ca di dox ak moom pour aajo ja sotti coono boobu nga ciy def ak volonté boobu sarax la mu ne ko waaw yow mi yàlla yónni su fekkente ne mënul loolu yonent bi ne ko na jëf-jëf ju baax walla mu fekk aw aw ay ba ay wadu agsi bi maanaa tey yaa ngi dox ci mbedd mi gis nga lu mën a gaañ nit nga fexe ba toxal ko xam bi nga ko xoolee xam nga ni lii dana gaañ nit nga fexe ba toxal ko ni lii day fexe naa ba du gaañ nit ma toxal ko ci mbedd mi loolu sarax lañ koy tuddee ku ñu sant loolu nag mbokk yi boo ko càmbaraatee ba ca biir war ngaa xam ne yow waruloo jël mbalit mbaa nga jël luy gaañ aw nit wala nga jël sa gravage Sénégal bi ñu xewal sax a ci gën a bon moom léegi da ngay toj sa kër jël gravage bi dem sotti ko ci mbedd mi ne da ngay defar te fekk ne yaa ngi yàq bu ñu xoolee ñun euh, problème mu inondation bi ñu dal yépp dara yóbbewuñu ko lu topp suñu bakkan ak ñàkk organiser suñu nature dund bokk na ci li ñu yóbbee musiba yi ñu dal tey mooy lan mooy lépp loo xam ne yow arrangé na la rek jàpp nga ne ñi ci def sa yoon nekku ci te loolu jullit du ko dunde mbokk yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku fexe ba fexel fexe fegal sa mbokku jullit aw ay wu ko mën a lor dañ lay bindal yoolu ko saraxe yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp foofu la ñuy yëkkatee suñu jataay di leen jox di daje ci beneen jataay wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu